exemple du sport c'est nutrition boo bëggee yokk sa masse musculaire am na fi boo bëggee yokk muscle sec am na fi boo bëggee wàññi sa poids am na fi am nañ deux boutiques Rufisque 70 euh, am na benn boutique Zac Mbao à face Auchan bi 77 591 75 83 boo bëggee maintenir sa forme di nga ko am boo manqué appétit bëgg yu la jox appétit di nga ko am te cherul macha allah Nivea boutique forever ci kanam. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi asalaamaaleykum yéen ñu di bëgg seen émission doole xel comme ni nga xamee tey ñu ngi fii Zac Mbao si salle bi ñuy wax complexe Jëf Sport lu waroon lu waraloon suñu teewaat tey tey dañoo war a waxtaan ak benn coach mu nekk coach bu mag coach boo xam ne dafa am xam-xam am expérience yàgg entraîné ay ay ay mbër yu mag a mag a mag tey dañoo war a waxtaanee lan mooy wàllum sport ak musculation ak mbër mbër na la war a defee musculation mbër na la war a defee defee sport te loolu lañu ñëw waxtaan ak suñu coach bu mag bi muy coach Bolo let's go sama gars yi ñu xool coach Bolo lan la ñu indi tey e mbokk yi ko waxee ñu ngi fii salle def sport soxna si ñu ñu ngi la nga présenté wu waaw ah, ma la jeera ba maa nekk si réception bi waaw ah, naka ah, ngi nii comme ni ngeen ko gisee uh-huh. waaw euh, mbër yaa ngi fi lépp a ngi fi macha allah salle bi waaw salle moom complet na salaamaaleykum waaleykum salaam ah, mag bi. ñu lay fekk ci liggéey bi de. waaw ah, waaw gis ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi quoi mooy loolu. ñu bàyyi nga présenté wu. nekk defee sport dëkk Rufisque. maa ngi ziar gars yi di leen bëggee. dañ boobu la boobu lay doon gëj a gisante mais gis naa état bi. gis naa entraînement yi. non non ma si dara damay suuf rek. non yaa ngi si forme maa ngi ziar gars yi di leen bëggee. di bi di nuyu waa defee sport yëpp. di nuyu mbër yi di nuyu yi fi ne yëpp. waaw coach tey dañoo bu ñu waxtaanee wàllu musculation ak mbër mbër na la war mbër est-ce mbër war a def musculation ak mbër na la war a defee musculation. waaw mbër war na def musculation parce que mbër bu deful musculation kattan bi mu war a am du ko kon musculation mooy jox mbër kattan. bu baax kay da am force intérieure am force boo xam ne nit da koy gis. ok waaw mais gis nañ fii ñu bëri ay mbër yu bëri yow yëpp weñ ba seen yaram day kàddaaral maanaam mobilité bu war a am duñ ko am loolu moo koy war. waaw loolu dafa am ñoo xam ne ñoom peut loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg mais. mbër bés boo demee contact moo contact si li ngay si li ngay entraîné salle de musculation jàppal ne sa entraînement bi ngay entraîné baaxul. parce que ni ngay entraîné noonu ni ngay bëree noonu nga war a entraîné. ok waaw. yaakaar naa léegi nga entraîné ay champion yu bëri mais laataa loolu suñu dem woon ni quelques quelques exercices yu mbër war a def ñu xool ak ñoo ko dugg si waxtaan bi. waaw amul benn problème waaw amul benn problème lañ ci yëg si kaw waa kon ñu wane quelques exercices yu mbër war a def incha allah. ok sama gars yi ñoo ko gisandoo ah coach bu loolu wax nee na mbër dafa war a def musculation mais wóor na la war a defee musculation let's go ñu xool quelques démonstrations ñëwaat. coach gis nañ gars yi jóge nañ jóge nañ si échauffement bi. Mm-hmm. lu mu def léegi lan la. li ñu doon def léegi étirement lañ doon def. waaw ah, ah, pour yee yaram bi quoi. kon soo paree si échauffement étirement nga jëm. waaw ah, da war a def étirement bu baax yee muscle yi ngay ñi nga bëgg a liggéey parce que instant ñi ngi bëgg a liggéey tànk yi. Mm-hmm. renforcer tànk yi tuuti. a jaaxle ma gis ne la mouvement muy def yëpp yow yaa ko njëkk def yow maanaam yow da nga koy wan mouvement yi muy def quoi te yow mouvement yi ni nga defee dafa jaar yoon waaw parce man sport laa bëgg moom laa gëm man dama ne benn mbër du ñëw fii gën maa jàpp du ko nangu ok kon yow da def sport ni mbëri waaw damay contact daal laa dul def ak box wax yooyu mhm. te box yenn saa ma laal mais li lépp lu mbëri def si musculation mhm. buloo doo koy def a parce que yow tey ji mënoo nit benn exercice comprendre loolu nuy méttee comprendre loolu fan lay sollicité nga bëgg def loo mbëri dina am exercice yoo xam ne mbëri da koy soxla te yow doo ko soxla mhm. waaw loolu mën na am différence quoi mais quand coach moom da perfection da nga war a xam bu baax pour fi nga koy yëgee parce que tey mën nga def mouvement am erreur tey bu ko defee bu amee erreur yow bu dee defoo ko doo ko xam dëgg war a def mouvement ba xam lan lay jariñ ci yow mhm. nga doog ko wan moom waaw ah, sama gars yi gis ngeen de tey ko si boolu li lañu indil tey si si si prestation ba xamante ni bëri na xam-xam ba pare doy na waat coach mhm. ñu lay seeraat bu wér mais coach ma bëgg nga ñëw si sa parcour ba pare waa sama parcours nag dafa dafa xaw a kii quoi <laughs> dafa yàgg de dafa yàgg waaw jëm ñu ko tënkal rek tënk waaw depuis depuis kañ depuis deux mille deux mille cinq mhm. laa commencé def musculation mais 97 euh, laa commencé def sport mais musculation mhm. 2005 2004 laa commencé def musculation. ok 2000 2006 2007 laa commencé euh, doo ko yor salle de musculation. ok boobu ba tey. waaw. mun naa la laaj yan champion ñoo ñoo jot a jaar si yow. waaw bari na de ma ko doon lim man est-ce que duñu ma mere. Hmm. bari na de champion yu bari am na ñoo xam ne yaa ngi leen dégg si arène bi man hmm. maa leen nii maa leen maa leen tàmbalee si musculation ba ñu xam la mooy musculation. mais loolu si baax pour pour ku ne xam fan la jaar. waaw gars yi sax xam nga affaire yi. moom aussi mooy limal benn cinq mbër sax baax na. waaw comme damay jël rek rek ak ak mhm. waa ay ay nees ay fëgal la ñoom ñëpp waa équipe caaro yi yëpp. caaro mhm. yi waa caaro yi waa waa waa Lamsaar. Mhm. ñoom ñëpp rek si maa leen doon entraîné. loolu yàgg na waaw. ok ñëpp maa doon entraîné ba ma ma ma ñëwee Tëngéej nag après ma commencé entraîné ay doomu dàngu ay Gamou Gueye ay Youssou Ndour ay Papa Yade mi gaañu yàlla na ko yàlla xare àjjana ñooñu ñëpp maa ah, leen di entraîné ba si ñii nga xam ne ay mbëri ndaw la ñu ngi doog a ñëw gars yàgg nañuy wax comme mbëri ndaw yi ngay ngay tàmbaleel gars yàgg nañuy wax mbër day woote mais loolu dëgg la wala dëgg waaw am war nag bu baax sax ah. waaw man kay lu ma la si wax kenn du ko dindi mhm. parce que dama yàgg a nekk ak ñoom xam seen jikko mhm. xam ñuy doxale mhm. waaw mbër daal bu nekkee mbër mu ndaw mën na la waaye bu demee ba benn tur yi jël yenn yi daal day day ko ci daw waaw xam nga xaalis dafa xaw a garaaw tey jii bu ñuy doog a indi mbër si yow day nekk booy bu ndaw mhm. ñu ne la dénk nañ la ko mhm. bu ñu la ko dénkee mu commencé développé ñeneen di ñëw di ñëw par benn benn mhm. ñu lay commencé di écarté yow nag boo amee fulla da ngay teel a écarté wu man je suis comme ça damay teel a écarté wu parce que man mënu ma di gagné sama live si musculation xam ko di ko def normal di pour tarbi la yow yaa am war a mais am na mbëri nag ñu baax ñu reconnaissant ñoo xam ne même bu dul xaalis sax da nga leen di bëgg a dimbali. ok waaw am na ñu baax mais am na si ñoo xam ne mooy loolu bu ñu amee rek dañuy dem. dañuy dem waaw. waaw mbër ñu ngi lay nuyu. waaw ñu bàyyi la nga présenté wu. jàmbaare ñu leen di fay. Mhm. di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér. xam nga di leen dalal waaw di leen wax ne maanaam dal leen ak jàmm fi ngeen ñu fekk nii. Mhm. fii man mun naa ne maanaam suñu kër la. Mhm. yaa ngi dégg suñu kër la suñu lépp la. def sport su ma juumul ku ko déggul ku ko xamul dégg nga turam waaw mm-hmm. coach su boloo ku ko xamul dégg nga turam mm-hmm. coach su demb tamit ku ko xamul dégg nga turam mm-hmm. waaw boloo moom mention spéciale wallaahi azim damay toog di ko wax ma ne man musculation moo ma ci doy amaana nag ragal féete day xañ a wërsëg man mën naa taxaw ne Sénégal moom daj boloo moo ci dàkk musculation ndax saa saa muy def loo xamante ne amaana mbëri sax mënuñu koo def xam nga tey ñëwal def lii dafa yomb comprendre nga yow da lay def la ba pare di li ngay def te boo moytuwul li muy def sa yow doo ko mën wallaay al azim xam naa ci ay champion yu bari yoo xamante ne tey maanam moo leen yor waaye ñun moom xam nga maanam ñu ngi koy ñu ngi koy remercier maanaam di ko sant di ko gërëm bu baax a baax eh, parle ñu tur bi dégg naa da nga am combat waaw le vingt le vingt six mai le vingt six mai maa ngi réparé réparé bu Géejawaay waa ja waa Yaaram Aar ñoo ko tëgg waaw eh, ñu bàyyi la nga woote waaw damay woo waa Kër Mbay Fall gi yëpp di woo xam nga commune Mbaaw gi yëpp Kër Mbay Fall Zac Mbaaw Tol Dias Ridis assurance mhm. yaa ngi dégg Kamb yaa ngi dégg Ridis Darou Salaam cité poste Zac ba cité ba waa Kër Mbaye Fall gi yëpp daal maa ngi leen di woo commune Mbao yëpp waa Fass Mbao mafia Ibo bu nekk Fass Mbao sama mafia bi nekk Grand Yoff waa Daaru waa Senzela yaa ngi dégg jàmbaar yëpp daal képp kuy bëggee Ibo waa ginnaaw raay képp kuy bëggee Ibo maa woo ci combat bi waaw di profité nag di ci woo kenn ci man Bokar Ndiaye Bokar Ndiaye maa ngi koy bëggee bu baax ko kenn la ci man yaa ngi dégg Yaxya borom France Yaxya borom France Abdou Karim Sall monsieur le maire maa ngi koy Thier Malick kenkaay yi nga xam ne lu mu jaayul xam nga ci bâtiment baaxul ay Papa Ndiaye mm. yaa ngi dégg ay père docteur Diop mm. waaw di woo sama mafia bi waa mbaar mi <laughs> waa mbaar mi ay père Abdourahmane Sall xam <laughs> nga rek ci occasion yi laay am quoi course dafa wax lu am solo waaw nee mbir day waree bàyyi boo nekkee champion non non man kii sama papa la mm-hmm. man jàppee moo ko sa course mm-hmm. wallahi al azim te xoolee moo ko sa bët boobu noonu mm-hmm. billaahi wallaahi wa taala amaana nag bu fi nekkagul nii a mais yàlla xam na li ci xol yi quoi. ok wallaay la yàlla yàlla yàlla motali motali waaw mais nag di ñaanal kenn ci man bookar mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko saa borom yokk mhm. di ñaanal sama yaay bu baax a baax yàlla na ko saa borom defal wér mhm. yàlla na ko saa borom defal wér di ko ñaanal mboolem yaay sama gars yi may àndal ñoom Sita ñoom Samaan gis naa taxawaay bi sama coach yi ñoom Grand Ibou Pape Kane yaa ngi dégg Tons Sam ay ñoom ay ñoom Binta ñoom Nasiru ñoom Fatou seen ñoom Ndeye Fatou Lo ñoom nday mati ndëqata sama ndëqata yëpp daal maa ngi leen di woo ci combat bi Ibo xoolal lu duuf dafa xaju sa xaju xaju si cin li léegi yow nag li fi wax nag maa ngi koy téye mm. yaa ngi nag mbër yaa ngi ne yow doo musa war nag image yaa ngi fi nag ko sax bopp ci loolu waaw ah, gis nga léegi ah. a dugg si waxtaan bi mm. dama jàng dama faral di gis de ay ay mbër yu bëri fii la ñuy tàmbale buy nekk xale di def musculation mm-hmm. petit combat ba sax ay huitième ba ay dix combat bu ñu commencé jël yenn kase yi kase vingtaine de millions yi jëm kaw ñu commencé di tukki di dem Europe pour pour pour def foofu musculation loolu lu waral loolu. waaw loolu man mën naa ko jàppee benn affaire. Mhm. peut-être changer ak seen entourage. mën nañ ko mën nañ dem foofu pour récupérer pour mën a gën a entraîner loolu d'accord naa ak ñoom quoi. mais lépp lu ñu wut Europe mi ngi fii. mi ngi waaw am na ay coach yoo xam ne dañu xam làmba. Mhm. dañu mën a dañu mën dañ mën entraîner mbër. Mhm. parce que nit ki lu muy bëree noonu nga koy waaw parce que tubaab bi yenn saa yi def erreur du xam la ngay bëre boo jàppee fii lan la lan lan la changé tere ak lu mu bàyyi yóbbu da nga war a xam yow mi nga yow mi nga ah, xam ne waaw en tant que coach mbër da nga ko war a xam parce que loolu mooy suñu cosaan ñun waaw da war a xam maîtriser bu ko defee di nga mën a di nga mën a yee si mbër mi si lu bari quoi ok waaw comme ni nga ko waxee yaa nga entraîné ay mbër est-ce que mbër yi nga daan entraîné yaa daa nga si gis sa bopp mbër mbër yi des fois di am ay cachet cinquante millions cinquantaine de millions lay fay lu ko war non moom xaay li ñuy fay fay fayuñu ko sax fii ñoom dañ lay xam rek buñ la miinee rek. Mhm. dañuy am lu ñu wàññi si yow. ñu si bari dañuy def loolu mais ñun si ni ñuy liggéeyee dafa des parce que ñun dañuy nekk côté si salle de musculation moomuñu ko dañuy liggéey ak nit. Mhm. peut-être si ñooñu la ñu gën a focaliser peut-être mën na nekk si ñoom mën na nekk si ñeneen mais ñun ñun suñu paiement si tegul si suñu salaire moom mooy suñu suñu base. ànd mhm. ñun ñun ñun mbër mi du ñu am dara lu ñu koy reproché coté boobu mais. mbër bu boo préparé normal ba mu kontaan mu daan wala mu ñàkk daanu parce que préparé wu na ko préparé bu baax mhm. ba mu kontaan gis boppam dafa la war a bëggal yow yow mi nga xam ne yaa koy entraîné même bu dul dara même bu dul fay parce loolu moom mooy yoon mooy base mooy tax suba mu mën la joxaat yeneen technique entraînement parce que mhm. nit ki yenn saa da lay bañ ci biir entraînement bi parce que tey ji chaque jour nga ñëw def même chose même chose bu yàggee day xaddi waaw bari na si ay mbër y def loolu mhm. waaw te loolu baaxul ak baaxul nit ki lu mu mu tollox yow da nga koy jox li mu moom jox ko ko parce que du la wàññi dara dara ko rek. yàlla moo fi ne ñun ñëpp yàlla lañ yaakaar mais ñun si côté boobu dañ ci war a gën a focaliser gën a jàppale coach yi parce que coach yi fii ñoom ñoo fi ne quoi. ñoom ñoo fi ne fi ne si si si bépp bépp domaine la. si côté waaw ba dara du dara côté wér-gi-yaram wax lépp. base bi la quoi. kon dañ ko gën a dañu leen leen war a gën a respecté muy coach musculation coach boxe coach ga ki lay ki lay coach physique. ñooñu ñëpp dañ leen war a dañ leen war a jàpp bu baax parce que ñoom ñooy base bi waaw. coach loolu am na solo mais bu dul dara sax xam nga mbër bu ñëwee yow da personal training lay nekk. Hmm. kooku même kooku bu faree salle bi sax dafa war a fa yow mi coach ndax yow personal training nga koy jot ndax da ngay bàyyi élèves yëpp pour concentrer aussi moom ndax dafa benn 3 boo xamante ni yow de maanaam coach bi dañ ko sas quoi dañ ko sas booy xool ku dem euro moom ay millions ngay fay ay millions li taxawaayu coach yi kon a nekk taxawaayu coach yi Sénégal waaw coach yi ñoo war a mànkoo rek ci yi nga xam ne ñoom mën nañ ba mën nañ la gën a mën jàng ay da nga da jàng da nga aay danga nga kii mais coach dafa am lu ne si biir billaay wallaay dafa parce que man dama ko foowee man sama live yëpp dama ko entraîner xam naa lu si bon xam naa lu si baax dama ko maîtriser tuuti xam naa lu ma si jot a maîtriser tuuti mën naa entraîner athlète ba nga xam ne bu duggee si géew gi di nga xam ne kii apte na quoi waaw pare na man dinaa def loolu mbër quoi may gis koo xam ne dafa ndaw tuuti ma def si moom doole ba nga xam ne yow mii di bëre doo ko gis si moom boo leen jàppante nga xam hmm. so day am quoi liggéey dafa dafa bëri ay branche hmm. mais coach yi bees yi peut être dinañ am duñu du du ñu xam lépp mais nañuy ñëw si ñi nga xam ne ay anciens lañ hmm. ñu leen di wax pour ñu mën a xam parce que mun ñoom mënuñ ñëw rek xam léegi ñun expérience bi ñu ci am ñu si bari amuñu ko si mais coach xam naa ne lu duuf si nag bi yëpp xajul si cindi bon xam naa fi la ñuy yemale waxtaan xam naa ba beneen yoon sa mot de la fin lan la lan nga bëgg a wax loo xamante ne ni laajuma la ko. waaw non laaj na ma lépp sax parce que si mbëri lañ lañ doon wax. sport dafa yaatu mbër yi am na mbër am na ñoo xam ne peut-être du ñu ay mbër mais dañuy gën a respecté salle de musculation yi. ok parce que salle dafa cher. nit mënul jënd salle de teg ko teg fa coach. li muy tere yëpp nga ko war a bàyyi. boo paree da nga war boo jëlee poids fu mu nekk. da koy delloowaat. ba da nga war a dalal sa sa lii. waaw da nga ko war di lal boo paree sarbet bi ngay indi ak bi ngay fompo na am différence ba pare booy ñëw nga correct quoi nekk nit boo paree nga ranger parce que salle dafa xat mënoo di jël poids liggéey si ba pare sànni ko dem sa yoon keneen bu ñëwee du ko a liggéey kon loolu dañ ko mooy respecté entraînement nit ki da ngay am kii quoi nu ñu dem que moom mooy yokk wér-gu-yaram bi mooy yokk taw seen stress kon nañ ko gën a jox cër loolu daal laay gën a wax si gars yëpp. message boobu ngay di gërëm ñëpp nag. di gërëm defee sport parce que fii laay liggéeyee. am na salle yu ma jaar yu bari mais salle bi peut-être bokk na si salle yoo xam ne meilleure salle la quoi. gars yi gëm nañ liggéey dinañ ñëw heure dinañ wàcc heure te dinañ jox liggéey bi ax fii boo fekkee ngoon gi wala yenn heure da ngay def ne personal training la ñuy dañuy def ñëpp la ñuy amul kenn ku dul entraîné ku ñëw lañ lay tegal programme li nga war a def boo waree def te épaule da nga def ba mu jeex boo waree def tànk doo ko boolee dara boo waree def mhm. def pec noonu lañ koy jàppee ba sa muscle yëpp daje mhm. parce que musculation loolu la quoi waaw à boo defee cardio ba pare musculation moom boo ñëwee dañ lay teg ci yoon nice mhm. amul benn problème di gërëm ñëpp nag di gërëm yow mi nga xam ne dafa yàgg quoi du tey tey nañ ay compétition yu bare bare bare bëri waaw yàgg yàgg nañ ci milieu bu baax yow xam nga si dara sax dañoo nëbbut rek du bëri lu ñuy feeñ si si si si net bi bëriwul lu ñuy ah, ah, feeñ waaw xam nga rek lu gën a doy waar ci bolo Sénégal dafa a doy waar ci bolo bolo day entraîné ibaadu day entraîné mbër day entraîné jour day entraîné basketteur day entraîné basketteuse maanaam nu mu tuddee sax handball bolo koo xalaat ci àdduna boloo handicapé sax boloo da ko man gis naa boloo di entraîné ay handicapé koo muuma sax boloo da koy handicapé da koy entraîné mu boloo mii muuma ak koo mën a doon ci àdduna boloo da lay entraîné waaw loolu maanaam lu ko may mooy yàgg si sport maanaam da cee maanaam da cee tarbiyu xam nga doomu aadama loolu tarbiyu maanaam loolu tarbiyu bu yàggee da nga koy mokkal maanaam daa yàgg maanaam ci teen bi moo tax baat fekk ko fa. loo xalaat lu nekk. loo man bokk lu ma xamul ci musculation bu moo tax ma xam ko. mais coach mais koy d'après fi nga jaar yëpp ak gars yi lu la seet yëpp parce que yow gis nga sa bopp carrément si musculation. non non gisoo ma ko si ne amour bi moo ma si baax gisoo sama photo bi man sama bopp rek laa xam. ay gis sama photo sama photo laay sol. <laughs> dama bëgg bu gaa yi ñëwlee sama entraînement. dama bëgg loolu. mais nag ci laa daa daa daa fan boppam. li li mu perte moom. lu mu perte barki maam Cheikh Anta na ma àdduna yëpp di déglu laa la man bu fa tollee. ma fay ko borom. Hmm. waaw. ah Ibou yaa ngi wax waxati nga de. Serigne Saliou laa la wala gum na loolu quoi. loolu loolu loolu leer na loolu leer na. loolu leer na yàlla baax na quoi ñun ah. moom. ñu wan discipline wan ñu yar comme ni mu ko defee moom. yàlla moo yor wërsëg. ñun ay bañkat lañ du ñuy wax kenn may ñu. mbër mu mag bu ndaw yëpp lañ ci yemale. boo ñëwulee fekk suñu pour ñu liggéey ak yow du ñu liggéey ak yow mukk parce que ñun ñooy saari fii boo nekkee saar si biti ñu ñoo fiye saar fii nag liggéey moo fi am amul neexal yenn liggéey bi day day day day metti ba yuuxu di si am mais rien pour performance parce que estade dafa metti la ñëpp wëree mm-hmm. boo fa liggéeyu yoo xam nga ku la ëpp doole ak ku la ëpp doole boo leen jàppante di nga xam ne kii dafa am doole waaw mm-hmm. kay léegi nag loolu bu amee yërmande rek liggéey bi waaw léegi léegi nag bu amee yërmande si salle bi boo demee feefee da ko dalay mere moom moo tax yi wax nañu su mettee si salle bi rek day yomb esat day yomb day yomb grand fii day yokk fit billaay mbër bu amul fit entraîné ko façon entraînement boo xam ne day fàtte sax ay dóor entraînement day yokk fit si lépp nag moo tax entraînement bu baax ba apte dafa am solo gars yi nañu liggéey bu baax mbëri seulement mbëri ndaw yi mbëri mag yi am na lu ñuy am ba pare bu ñu la neexee ñu maintien xool leen moom ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñoo ñoom côté boobu ñoo ñoom ñoo si xam dara mais mbëri yi nga xam ne dañu bëgg a yéeg nañu entraîné bu baax parce que entraînement moo yor lépp mooy base waaw di gërëm ñëpp tamit di sant ñëpp sant sama soxna di ñaanal sama doom yi yàlla bàyyi leen fi ñoom wér-gu-yaram taw feex gudd fanax lépp ba lu ñu yóotu si man man ma defal leen ko waa parce que loolu mooy àdduna ko ba ma amee soxna am am am ay njaboot yu barkeel da ngay ñaan da nga leen ñaanal yàlla yàlla jàppale leen waaw di ñaanal monde entier yëpp bu dee dama juum si wax ji mu jéggal ma xam ne man nii je suis comme ça nii laay waxee mais dama bëgg sport dama ko gëm waaw dama ko ko bëgg chaque jour laa nekk chaque jour di si xam nga gars yi yenn saa sax da lay déema dëru ne dama demal feneen ma ne leen man lii laa am aw ma leneen ma wàccee damay récupérer ngoon damay ñëwaat liggéey si loolu laa xam kon di ñaanal ñëpp ñaanal ñëpp ñu am jàmm bu dee wax ji dafa dafa dëng ñu jégal ma xam ne baloo nii wax bi lu baax rek la si jublu quoi waaw loolu daal laay am lu may wax gaa yi waaw waaw sama gars yi gis ngeen de tey lii leen indiloon seen émission doole xel ak coach bu mag bi di coach Bolo gis ngeen parcours am gis ngeen jaar-jaaram tey moom dama gis dama gis lu ma jaaxal ndax yàgg naa dem salle mais dama gis dafa avant mu entraîné na mbër bi da ko da ko wu ba pare mu étiré mu étiré dugg si séance bi bu ñu paree encore encore mu étiré wax tamit encore une fois mbër yi nañuy reconnaissant envers seen seen coach yi coach yëpp a ngi kaas muy coach yu boxe yi coach yu musculation yi même coach yu jox sax benn 2 millions sa coach waaye bàyyi leen sa xel baax a baax bàyyi li leen indiloo seen émission doole xel dinañ jox rendez-vous seen dig daje am out peace